président Sall mer ba fut ba mu yëgee nii dañoo nangu licence wal fajiri buñ sukkandikoo ci kàddu yi délégation ba demoon ci moom muy Cheikh Niass ak lenn ci euh, responsable wal fajiri daal neen président mer na lool ba mu yëgee lool ndax yëgu ko woon ñu nangu nañ licence bi am na ay kàddu yu mu leen wax nag euh, ci làmmeñu Cheikh Niass ñu déglu ko dellu si waat li xew daal mooy il y a eu des ay nit yu dox tànk jàmm ku si nekk ay kilifa déem na dox jàmm pour que président de la république ñëwaat ci décision boobu noonu. Mm-hmm. tey effectivement. Euh, benn si kilifa yi muy Atepa démb la ma woo si guddi. Mhm. ne ma président dina ma recevoir tey à 16 h bi ñu toogee mu wax ñu moom gis-gisam ñun tamit ñu wax ko sunu xalaat sunu sunu liggéey. Mhm. waaw bi ñu toogee foofu noonu séance tenante la jël téléphone am woo Babacar Diagne président CNRA. Mhm. woo le ministre Moussa Bocar Thiam ne leen nen rétablir. à vingt heures le signal de Walfadjri donc wax nañu moom li mu gis mooy que la liberté de presse am na solo mais am na lu ko ëpp solo lu vie mënul seetaan euh, ay incitation à la violence mais man li ma jàpp mooy Walfadjri mhm. ñu responsable ñoo fi nekk jour euh, émission bi ñu incriminé muy mm. Pierre Edouard Faye moo fi nekkoon te je pense que Pierre Edouard Faye umpul kenn que c'est un journaliste chevronné mm-hmm. qui est responsable donc euh, man gage boobu laa mun jox askanu Sénégal gage boobu noonu laa mun jox le président de la République mooy que la plupart des journalistes mm-hmm. ils ont une expérience ñun ñoo gën a am intérêt sax Sénégal nekk si jàmm mm-hmm. waaw dañu jël nag un choix choix bi mooy ah, événement bu am Sénégalais bu wone mécontentement am ñu fësal ko parce que nag c'est le mur des lamentations mais on est responsable loolu moom maa ngi dalal xelu président de la République Walfadjri va continuer à informer juste et vrai mhm. mais avec responsabilité et avec professionnalisme waaw décision bi président de la République euh, il nous a dit na si effectivement la coupure pour moom su amee luy luy entraîner de mhm. droit à la vie boobu noonu mhm. moom ànd na si coupure mais bi ñu ko waxee retirer licence daf ko jaaxal daf moom président donc dafa mel information bi ñu ñoo ko jox information boobu noonu. waaw pour vous dire que euh, xëy na su fekkoon information yi am na ko à euh, première main. Mhm. xëy na euh, doonul woon d' accord si yenn décision yi. donc c' est très important Sénégal yi xam na que. Mhm. président bi mu nu moom il était d' accord sur la coupure. Mhm. voilà il était d' accord parce que c' est le président de tous les Sénégalais et li ko intéressé mooy dëkk bi nekk si jàmm. li ko intéressé mooy bu nu inciter benn xeet buy jëmal si violence. Euh, la coupure le retrait de licence loolu euh, nekkul ci euh, projet am. Mhm. voilà mi ngi noonu Assane lii lañ fa jëlee mbir ma gën na gudd waxtaan wa ak yee ca yëpp daal fii lañ mujj muy président Sall woote na nañ leen delloo ci signal bi di nuyu Cheikh bu baax a baax te di ko massawu ci naan gi mu naan ci lacrymogène yi di wax ni nag boo yi koy ci internet bi bis ku ma ci di nga am problème bàyyi leen Cheikh ñu tout tranquillement hmm. waaw mujj naa dajeek président Sall démb wax na leen ay wax delloo si nañ signal bi. waa am na solo xanaa rafetlu bu baax kàddu yi Cheikh ñas ak taxawaayam bu baax a baax di ko wax ni ko daal ñun jox nañ ko bopp te ñu ngi koy diglu te ñu ngi koy bàyyi xel bu fekkee ne Walf képp a ko ñor fii la xeex bi yem mais bu dee Sénégal a ko ñor ajjuma incha allahu rabbi dina continuer xeex bi ba président Macky Sall li mu wax ni moom da koy génne pale daal di am. non Cheikh demoon na pale nga naan génne pale. Hmm? demoon na pale keroog. génnewu ko ndaa dem toog waxtaan man si yàlla dinaa la yónnee ku de yow kii dem na pale waxtaan ci jàmm ñëw ñu delloo signal bi nga naan tax génn mu ni day dem génne ko nga fu mu dafa meroon rek président nee na ko da meroon waaw ah. tout cas daal Cheikh it dafa xam ne dafa war a xam ne euh, lii bi mu amee euh. am na nit ñu ci ñàkk seen bakkan am na ay sociétés yu ci yàqu xam nga dañoo dañoo tijj dañoo tëjoon ab société ay société yàqu si ñu tijj société waaw am na ñu si ñàkk seen liggéey te dañu doon défendre ñu ñoo xamante dañoo kii seen liggéey am na liggéey yu bari si yàqu mhm. kon Cheikh tey jii bi mu demee si président Macky Sall yaakaar naa bi mu ñëwee man li ma waroon a xëy dégg mhm. mooy kat wax nañ ko ni ko fee sa Walf de bañ ko tëjee sax am na jàmmaarloo yu fa am am na fa ay oto yu ñu taal am na fa ay sociétés yu yàqu am na am na nañ ñëw constat ko jéem a fay seeni borom mhm. ndax loolu far force la dañ leen a war a fay ndax li ko sabab lii ci la mhm. donte ñi ñëwoon Walf man si li ma gis biñ dóoree grenade bi ñëpp ñibbi nañ ñoo ñibbi waaw ñu doon xeexal moom du ñu ñëwoon ci Walf ñëpp a ñibbi mais ñu jógee woon côté yee ñoo ñëw yam sa jàllu xeer ba kër yii ñu doon toj kër gi daanu woon fii waaw ñu toj xeer yi jàll ko fee boo yeet yam si xeer yi masha Allah xeer yi dimbali leen ak boanson beeg yooyu ñu jàmbaar policiers yi mhm. te tey ji biñ ñëwee bara sànnante policier policiers yi demoon mhm. booy fii dañuy taxaw rek dictateur Macky Sall dictateur Macky Sall ba sonn dem ñibbi si mais bi ñu ñëwee taxaw police yi bi ñu dóoree grenade bi si la booy yi fayu. waaw kon loolu il faut que ñu siy bàyyi xel. police yi dañoo dem gaare ci jàllu xeer ba sax lañ gaare. voilà léegi nag ku demee ni président bi nga xamante ni mooy seex Niass. Hmm. dafa war a xam ni xeex bi benn la. mooy le cinq bii dañu organiser élection yi. affaire bi du tëj nañ wàlfu ñëpp naan wàlfu wàlfu wàlfu wàlfu nii tijjiwaat nañ wàlfu ñëpp naan wàlfu wàlfu ak ñi ngi koy remercier ak yooyu loolu du problème bi tijji wàlfu geeg tëj wàlfu gi moom la ñu yemale mhm. li mu war a taxaw xeex mooy nañ organiser élection yi te xam ne moo xeex bi da see da wër a taxaw amagu ci ndam ah, amugu ci ndam amugu ci ndam moo père Godiaby Atepa ak ñi dox tànk jàmm yëpp ba ba yaakaar ni jàmm am na ñoom si boppam war nañ si lii kon complexe si bu ñu fekkee taxawuñ si ñu organiser élection yi nañ ñu recevoir ñun ñii di ndaw ñi na na na père Gadiaaba Atapa ni ko. kenn du la recevoir. bàyyi la bàyyi ko ba àggal bàyyi ko. bàyyi ko ñoom ndaw ñi rek. moom bi waaw bàyyi ko damaa bëgg ma xam. yéen ndaw la waaw bàyyi ko. <laughs> nan la ñu recevoir ñun ñii di ndaw ñi. waaw bàyyi ko yéen ndaw laa bi dafa bëgg bàyyi ko. ñaari jabar naan ndaw ñi mag nga. nga ni père Atapa Gadiaaba. na ma woo si ni mu gën a gaawee mu wax ma président kañ la may recevoir ma wax ko li xew ci réew mi. yow waaw wax ko ko fii non non dama ko koy wax ndax ma ni Cheikh nee na wax na ko fii ba génn tegante dënn personnes ma ni xam naa président Macky xam naa mi ngi may seetaan moom day seetaan ni mi ngi may seetaan mais danaan yëgu ko eh. mi ngi nii <laughs> ah, li xew nga dem mun yëgu attan na ni yëgu ko ndax li xew wàll fajiri nee na yëgu ko si en tant que président ñu dénk la réew mi lii xew fi nga ni yëgoo ko kon war nañoo xoolaat ki ñu dénk réew mi kan la mm-hmm. voilà léegi nag kon président Macky Sall Cheikh Niass daa war a jàkkaarloo ñëw fii ne ñu wax naa ko na organiser élection yi la 25 bii mënatuñ koo muñ par dañ ko war a bokk na si discours yi ne nee ko la 25 bii mënuñu koo jéggi. waaw ko a wax la war a wax nee naa li xew si yéew mi yëpp yaay responsable bi wax ko daal loo xamante dinañ si kontaan. léegi tax nga bëgg mu nga Cheikh ñëw na ba tegante ak policier yi lu ne mënoon saa xew. waaw taxaw nañu dina génn président Macky Sall palais bi loolu lépp ñun ndaw ñëpp ñu kontaan ci loolu kon bu ñu ñëwaatee fii di ko raayal ginnaaw wax dëgg yàlla day xaw a day waar. raayal kan ginnaaw président Macky Sall naan yëgu ko woon bi mu ko yëgee si tam te parti Pastef dañ ko desundur desundur <laughs> desundur wal fajiri desundur wal fajiri ñu war téléphone nañ ko delluwaat ñu delluwaat ko loolu man jaaxal na ma. waaw man yaakaar naa ne. <laughs> conse wal kenn desundur non non non Cheikh dañ ko desunduroon walf <laughs> te ñu ñëwoon ko de bu njëkk ba bu njëkk ba dañoo tëjoon signal bi un mois mais bii dañ ko descendre asan Walfadjri groupe la waaw maanaam licence u télé bi dañ xanaa nag sëñ bi dégg nga information boobu waaw mais man bi ñu ko ko seetaan mais si këyit xam nga Pastef ngi nii descendre ñu ko te yaa ngi woon dañoo taxaw ni Cheikh ni ne bee dañ koo tëjoon waaye bii kat nee nañ dañ koy descendre ñu ñëw ñu ne descendre Walfadjri amatul loolu code téléphone waru ko mën a indiwaat ah. waaw sëriñu daara yi bi ñu leen jàppee sëñ Abdou Samad toog ak Macky wax ko hmm. dafa woote daane nañ jéem a saytu tegaat ko si yoon ba lijjanti loolu kon noonu la war a wax waruñu woon a woote ni vingt heures na wal fu ñëwaat lu ñu desundur ay caaxaan warut tax mu ñëwaat kon gis naa ni Pastef bu ñu demee toog ak président Macky Sall ñu indiwaat parti Pastef indiwaat nangam loolu du yoon hmm. du mbiru da toog rek daan ni desundural toog ni nañ ko dee <laughs> a procédure lañu waroon a topp donte un mois ñu xoolaat demaat fañ demoon awaat fañ awoon ba tëj ko ñu awaat fa tijjiwaat ko waaye code téléphone tijji leen ñu tijji yëguma ko woon mu jeex yëgoon nañ ko nañ organiser élection yi daal mooy combat bi na Sénégal gépp maas si nañ organiser élection yi tëj nañu wàll fa tijji nañ wàll fa loolu du problème bi joxe a <laughs> ah, dajji babillage est yow mi lañu war a des man kay dina ma woo ma ñëw toog wax ko li xew ci réew mi par force président Macky Sall père Gadiaba Atepa Atepa waaw peut-être pas na ma woo ma dem toog président Macky Sall wax ko li xew ndax gars yi bëri ñi ngi ñàngal nii buñu jàkkaar président Macky Sall duñu ko wax li xew waa léegi yow léegi loo bëgg dem jàkkaarloo moom jàkkaarloo moom wax ko li xew wallaahi xasim ñi ma ñi ma mas a toogal ñëpp xam nañ ne man ku ma jàkkaarloo dinaa yow yow wax ko li xew fii mi ngi may gis waaw wax ko ko président Macky Sall mus mus maa def lu ko umb lépp lu ma def xam na ko waaw te man am naa si lu ma leer nañ ñu ne xam na ko waa léegi wax ko ko fii man yi damaa bëgg a jàkkaar mu wax ko ko ba pare journal bi teewe ko bu mënee sax ñu def ko RTS eh, eh, ma wax ko ko ñëpp dégg kon Assane mooy Macky yaay Macky Assane nañ toog ba pare ma lijjanti problème réew mi <laughs> problème réew mi man mag maa ko mën a lijjanti fi mu toll nii man. dégg muy nañ toog ba pare. man rek maa mën a lijjanti problème réew mi ah. waaw. gars yi doon nañ def ay tiaraison ba yàgg ñuy dugal ay kaas sàngara. Mm-hmm. nañ am si tiaraison googu yi. alaaji. waaw euh, noo déggee euh, élément bi ñu teg euh, Cheikh Niass mujj naa dem. bi mu demee ba ñëw def na discours. moo ñu xamal lañ fa waxtaane moo ñu xamal ni président Sall yëgul woon nangu licence bi ak yu bëree bëri wax na ci wàllu équilibre bi wal fu war a équilibré ak it wàllu invitation yi ba Oustaz Assane sax ni ko ñoom ñoo bañ a ñëw mu ne ñu dinañ xool daal nan la ñuy def kon ba lijjanti problème boobu ñoom seen bopp su leen invité ñuy ñëw waaye daal signal ba dellusi na. waaw xam nga Assane li mu wax. Assane nag da logique boobu sës. parce que def naa ni logique euh, wàllu fa kut téléphone ko tëj wàllu fa kut téléphone ko ubbi. mais de sundur moo ko moo moo lépp kut téléphone la. kut téléphone. waaw téléphone la kut téléphone la. kut téléphone mën naa waa ji fii la woote. ne leen arrêté leen. baa ma tëj baa ñu ne ko tëj arrêté wuñ mu tëj. bañ demee it dañ koo mu ubbi kut téléphone ko tëj kon kut téléphone ko ubbi. maanaam ay loolu nag moom la ñu war a wax ne ndax tëj gi bu tëj gi jaarut yoon tëj gi jaarut yoon. parce que ab télé warut sa demee noonu quoi. Hmm. waruñu koo tëj ci coup de téléphone woote ne tëj leen ñu tëj ko yëf yi warut a demee noonu quoi parce que télé am na. norme yoo xamante ne bii. jaar procédure war a jaar procédure boo xam jaar na ci. Hmm. tey jii pour tëj seenu YouTube doo tëb tëb rek tëjee ko noonu sax di nga jaar ci YouTube mu am ay procédure hmm. ngeen def seeni i kii affaire yooyu comprendre nga. waaw ba muy leer ne. lii ñu lay wax yow la ñu mën a soog a tëj sax te seen ba mhm. comprendre nga yooyu mooy li nga xamante ni bi moom la yëf yi amut maanaam ñun réew mi dafa mel ni rek euh, ci informel lañ ko yor maanaam dafa mel ni yëf yi doxut ni mu war a doxee mhm. comprendre nga. Mhm. parce que Walf waroon na am ay kayit yoo xamante ni bii teg nañ ko ko war na am yenn yu mu war a jaar yëpp waroon na mën a nekk bu fekkee ne dañ na jaar yoon am na procédure amende amende la nangam def la lii def la yooyu yëpp war na am quoi mhm. nga xam ni yeggaguñ sax ci ay tëj mais dañuy jékki-jékki rek coupé si signal. Mhm. yor sa bouton rek bés. loolu dafa yomb de trop leneen li. ñoom seex nag bon delloon nañ signal bi alhamdulilah ginnaaw signal bi ñëw Euh, mais di wax ni. dafa warutoon a dem. signal bi. dafa warutoon a dem. waaw signal bi waaw parce que signal bi bu ñëwee euh, Walf mënut a jóg fi mu nekk. parce que su ariyaaraatee fi mu nekk rek kon dootul doon Walf. Mm. Ah, waaw parce que li ko tëj. Mm. mu waru koo mën a bàyyi parce que li ko tëj mooy joxe xibaar defut leneen lu dul joxe xibaar li xew nga wane ko ñu tëj ko mm-hmm. kon dinañ ko tëjaat loolu ko jàpp ah waaw parce que bu fekkente ni bi joxe xibaar mm. ah noon noonu la war a demee de ni mu war a demee mooy noonu mm-hmm. maanaam ki ko tëj maanaam dafa war a mën a accepter que nii réew mi moom laataan muy fay falu dañ doon wane li fi ne mm-hmm. Abdoulaye Wade tëjut télé bi fii lañ doon wane tàkk-tàkk yi dëkk bi yëpp di tàkk. dëgg la ñu koy wane. boobu nag li ci doy waar mooy boobu télé yëpp dañ ko daan def. Mm-hmm. léegi nag dañoo bàyyee Walf terrain bi. waaw moom dong mu di ko def. mais mm-hmm. télé yëpp dañ ko daan def léegi nag ñeneen ñi lan moo tax ñu arrêté. Walf rek di def. Walf di def ndax dafa am leneen lu xew. loolu nag fi mu toll nii Walf ni ko nit ñi di observer sax. mooy gën a garaaw parce que fi toll nii nit ñaa ngi ne tekk di ko xool di xool ba xam. lii xew suba. wala luy xew ah. kii nan la ciy taxawee. gannaaw recevoir gi. gannaaw loolu bi luy xew. léegi nag su fekkente ne bi taxawaal euh, parce que fi mu toll nii tey mbir mi wal moo ci gën a nekk ci mu toll actuellement ci problème ubbi bi. Hmm. waaw parce que il faut que tamit sénégalais yi dafa am foo xam ne fa lañ koy xaar. Hmm. ab président Macky Sall dafa wax benn wax boo xamante ni bi daal ne leen euh, na ngeen éliki équilibré. équilibré yamale. Hmm? yamale. Mm-hmm. loolu la waaw président Macky Sall moom dafa fàtte ni fii tegu fi Cheikh. waaye RTS moo fa teg racine. Ah. wax nga ko démb. waaw def nga benn vidéo expliqué ko. si racine taala moom. Mm. ndax équilibré na. kon man dama defoon ni président Macky Sall xamatul sax mu équilibré man defoon naa ne loolu waratu koo sax wax waratu la génn moom ci gémmiñam équilibre waaw waaw équilibre moo ñu ñàkk manque d' équilibre moo ñu indi fii wax nga dëgg ñee di sa di ñu saaga waaw te ñun ñoom li ñuy wax bu ko waxee ñun kenn ko kenn du fay ñu ne ñu ratt ci kaso te ñoom am nañ sañ-sañu wax ko loolu équilibre amut réew moo xamante ni bi kii ñeme naa taxaw ci bitti saaga nit ñi mhm. wax leen lu ñaaw wax nitam kii lu ñaaw te yow ñeme woo bu ngeen fayoo ñu dëj leen. waaw équilibre. kooku ñëw ne équilibre est war na mën a xam na moom exactement lan mooy équilibre. vraiment. parce que équilibre war sa yam rek ci ñi ñuy invité mais askan wi ni ñuy doxalee. Mm-hmm. am na ñoo xamante ni bii tey boo ñëwee ne waaw man de diw laa àndal daal di wax lii boo waxee li ñu ah kii sax war nañoo xoolaat ay mbiram kii léegi moom dafa mel ni euh, dafa contre président. nañ ko kii waaw yow war nañoo xool sa mbax ndax ndax bokku leen ay idée waaw réew mi mooy dox fi mu toll nii moom bu dee manque d'équilibre bi muy wax. mais le fait que moom gisut loolu. loolu mooy li garaaw. maanaam moom gisut gisul déséquilibre boobu nga xamante ne bi moo am nga xam ne ñii am nañ sañ-sañu wax lu leen neex am nañ sañ-sañu doxalee lu leen neex télé bii am na sañ-sañu doxee nu ko neex. comprendre nga ñànk d'équilibre moo dem ba DGE. waaw vraiment. ah mën a dem jëli ji seen i këyit. waaw kii ñëw di jël manque ñàkk d'équilibre si dëgg la dëgg la manque d'équilibre ci ànd ak yow ci ànd carte d'identité mën koo lijjanti tey mu génn tey kii nga xam ne jàpp nga ne àndut ak yow waaw ko sa carte d'identité doo ci jot loolu lépp manque d'équilibre loolu lépp loolu la ñuy laaj yamale googu rek moom mooy li nga xam ne moom lañ ko doon laaj fépp ñëpp yam ci justice mais alaaji sax ñun yam ci lépp alaaji ba ci fii euh, tey ñun li ñu yore cadre bi ñu yore muy takk soo kii di def invité waaw nan lay def tey bu woowee waa Pastef waaw boo liggéey moo ñi féete fee mais pour jot nguur gi looy daj pour jot leen ñi féete ak état bi bu leen bu leen nangu mm-hmm. invité duñ dégg nga dañuy wax ay argument te tuuti ci kanam dañ lay ñoo lay woo de tuuti ci kanam mm. ñoom ñi nga doon woo ñoo lay woo pour nga invité leen donc dañu bëgg a wax euh, nañu xam ne lim leen sasit mënul ne mm. waaw parce que tamit président Macky Sall euh, li mu sas. waaw mu sas. Mm. wa Walf. Mm. yamut rek ci équilibre boobu de. Ah, lu leen sas. waaw moo tax peut saa yi dama jàpp ni bon peut-être ñoom déggoo ko quoi ci wax ji. déggoo waaw équilibre bi ñoom yam moom yamut ci équilibre bi kii de. ak la équilibre la. équilibre bi yamale na ko yóbbu na ko ba ci chroniqueurs yi. chroniqueurs la tuddul chroniqueur. waaw tudd ko mais xalaatam la. waaw mm-hmm. ah. ah, day xalaat ne déséquilibre day am xam nga tey bu fekkente ni bi tey da nga def émission boo xamante ne bi am na plus de quatre chroniqueurs ñoo xamante ne bi bu ñu waxee seen xelum bopp rek seen xalaatu bopp mooy yow ànduñoo ak yow ci ni ngay doxalee mm-hmm. maanaam xam nga ñoom dañoo nekk minorité fépp mm-hmm. ñoom euh, APR waaw waaw mënuñoo am équilibre ci plateau yi aussi waaw mënul waaw parce que gis-gis yi maanaam défendre gis-gisu nit ñi comprendre nga maanaam ñi bokk ak ñoom gis-gis mm. nanguwu ñoo dem ci plateau te ñi bokkut ak ñoom gis-gis ñoo ne ci plateau yi. kon équilibre mënta ne. d'accord comprendre nga. Okay. donc li mu wax noonu. Hmm. mission impossible la. d'accord en tout cas daal ñoom na moom li mu war a xam rek mooy Walfadjri euh, li tax mu bàyyi ko nag ak li nga xamante ni bii moom ngeen di waaj a ñëw xam naa loolu bokk na ci li tax mu dindi. teel a daw dindi kii pour wane ni maa nga ca yoon wa. d'accord waaw boo seetee sax tey am na ñoo xam ne bi ñuy revue de presse noonu la ko revue de waaw mi ngi ci ak yolomal ba tax na jox na wal fajri kiiwam tam mi ngi waaj a defaat lii ak lii ak lii maanaam yooyu bunt la pour wane ni maa ngi ci yoonu d'accord yolomal tee nga la waru doon a am aywa <laughs> jërëjëf